alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa xadimihi wa man ihtada bi hadihim ila yawmi ddin ixwat al iman wal irada assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu yéen bokki jullit yi teew ci barab bi yépp bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkee lit ci weer wu tedd wii ñu nekk te nekk ci fan yu mujj yi di jël nuyoo ak ziyaara bi di ko teg ci loxol jëwriñu liggéey bi mu di sëriñ Afiya Muhammadul Muxtaar mu wàcce ko ci mboolem daairatu muxaddamatul xidma yépp ak mboolem bokki jullit ak bokki taalibe yi yépp di am mbégte nag ci dellu siwaat fii ànd ak yéen liggéey bi nga xam ne comme ni ko sëriñ Cheikhouna waxe ci ngeen dëkk yéen waa daayiratul muqaddamatul xidma ci at mi yépp dafa tolloog nag weer wu nekk rek am na lu ngeen ko cërale ci biir liggéey bi weer wu tedd bii nag di weeru koor ngeen cërale ko ci jataayi diine yi comme ni leen ko sëriñ Cheikhouna Sall waxe tey ñu tànn thème boo xam ne bu am solo la bu bu jara waxtaane ndax tollu nañ ci jamono yoo xam ne diine ji soxla na ñu waxtaane ko ay pénc mi itam soxla na ñu waxtaane ko te mooy liggéeyu jigéen ci gisiinu lislaam ak ni ko islaam tërale ak ni mu ko tënke bu ñu waxee lool nag comme ni ko sëñ Seexuna junje mooy liggéey bi bokkut ak bi mu aadawoo def ci biir kër way juram lu jiitu muy dugg néegu sëy ak liggéey bi mu aadawoo def ci biir néegu sëy gannaaw bu ca duggee ba noppi waaye liggéey bi nga xam ne nag ci bitti kër gi la koy def loolu bu ñuy wax liggéeyub jigéen loolu moom lañ ca jublu jigéen nag comme ni ko sëriñ Cheikhouna junje dafa nekk koo xam ne genn wàllu société bi la société bi bu ñu ko xaajee muy ñaari xaaj benn partie bi mooy góor ñi benn bi mooy jigéen mooy jigéen ñi ndax jigéen aw daggit la ci góor alquranul karim wax na ko a'uzu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi xalaqakum min nafsin wahida wa xalaqa min a zawjaha wa bassa min uma rijalan kathiran wa nisaa wa taqulla allazi tasaaluuna bihi wal arxama inna allaha kaana aleykum raqiba sunu borom subhaanahu moo wax ne yéen nit ñi na ngeen ragal yàlla seen borom mi leen bind te tàmbalee seenu mbind ci jenn jëmm muy góor bi mu ko bindee ba noppi nag mu tibb ci góor nag bind ca jigéen loolu moo tax nee na ñoom nag ñoom ñaar ñooñu muy Adama ak Hawa ñoom meññ mboolem moo leen ñoo leen meññ mboolem yéen ñi nga xam ne yéenay xeetu nit yéen war a bàyyi xel ci loolu lépp nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwaat ne annisaa'u shaqaa'iqu rijaal jigéen ñi aw daggit lañ ci góor ñi kon société bu nekk ñaar ñooñu ñoo ko seq loolu nag moo waral et mission bi nga xam ne itam moom lañ leen dénk bi muxtadal xilaafa te muy xilaafatullahi fil ard ñoo ko bokk ñoom ñaar la yàlla wàcc ci kaw suuf ñu nekk ci kuutaayam ci lépp la nekk ci suuf ak lépp ak ñépp ñu nekk ci suuf ba képp ku nekk ci kaw suuf rek di mbindeef te doo doomu aadama la nga mënalul sa bopp ka nga bokkal aw xeet mënalu la ko doomu aadama la yàlla digal mu wuutu la ca garab yeeg bayima yeeg mbindaa ko ni yàlla yépp tey kenn ku ci nekk la nga mënalul sa bopp sa ki nga bokkalu xeet mënalu la ko doomu aadama moo cay moo moo cay wuutu sunu borom subhanahu kon mooy kuutaayal sunu borom ci kaw suuf yàlla nag sant am lu mu ko sant nag am lu mu ko sant tobbil ko ñaari sas sas wenn wi mooy li jëm ci li yéwénal këru ëllëgam sas wi ci des mooy li yéwénal aw nekkinam fii ci kaw suuf muy ñaari liggéey yu ñu ko sant benn bi mooy jaamu yàlla gi nga xam ne ca la ñuy fàggoo la nga xam ne mooy ajjana yi ëllëg ak texeeg ëllëg ak teraanga yi ëllëg ak liggéey bi nga xam ne mooy yéwénal sunu nekkeen fii ci la ñuy sàkkoo sunu teraanga li nga xam ne mënuñu koo ñàkk muy sunuy dëkkuwaay sunu dund sunum kodd sunu lu aj sunu wér gi yaram ak lépp loo xam ne daal mooy yéwénal sunu nekkin ci kaw suuf ñaar yooyu tey moom la ñaari sas la yoo xam ne sunu borom daf koo tobbil góor gi ak jigéen gi kenn ku ci nekk am ci taxawaay bu mat sëkk boo ci war a am li nga xam ne it mooy suuf fi mu wàcce it muy li fi war a am ci ay infrastructure yépp yoo xam ne doomu aadama soxla na ko ak dundin gi muy liñ fi war a tabax lépp doomu aadama la yàlla sant mu def ko te góor gi ak jigéen gi la wa ansaakum min la ardi wasta'marakum wasta'marakum fiha ñoom ñaar la sant bi mu leen wàccee ci kaw suuf ñu mettre suuf en valeur exploiter li fi nekk lépp li fi nekk war a nekk am ci ay infrastructure yépp ñu def ko sunu borom subhaanahu waxit ne ñoom ñaar ñooñu nag kenn ku ci nekk sasoo wala tobbil nu ca sa taxawaay ak sa yitte toll na la résultat ba nga cee am toll muy laa la cee fayee amul benn discrimination wala benn distinction boo xam ne dañ koy def entre góor gi ak jigéen ji ci kaw ne kii kat jigéen la kii kat góor la ci lépp loo xam ne dañ koo jëf lañ leen ca war a fayee man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba kooku mooy sas wi aju ci wàllu li yéwénal nekkee ni fii ci kaw suuf moom la njëkk a wax man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba ñoom ñaar ñooñu képp koo xam ne laxasaayu nga def taxawaay ya nga xam ne moom lañ sàkku ci yow ci luy yéwénal saw nekkin fii ci kaw suuf ci wàllu liggéey lañ la ca war a faye lépp ci ak pay goo xam ne dana tax nga am dundin wu neex wu teey am dëkkuwaay bu baax bu méngoo ak yow di dund dund bu baax bu méngoo ak yow di kodd kodd mu baax di sol yére yu baax yu méngoo ak yow naka noona la nga mënta ñàkk lépp ci ay tiraanga yu méngoo ak yow nga man koo am sunu borom nee na képp koo xam ne futti ku gën liggéey te jox liggéey ba àq te sellal ko nee na warul naa la lépp lu aju ci lii nga dund dund gu teey ba doo sukkandiku ci kenn doo dépendre ci kenn doo jaay sa ngor jënde ko am am doo jaay sa diine jënde ko am am ndax la nga war a am lépp am nga ko waaye yaa ngi ko jaare ci liggéey mu ne waaye naka noona beneen tool bi muy jaamu yàlla itam nee na muy góor gi di jigéen gi képp koo xam ne la la ca war lépp def nga ko bu fay jotee danaa la fay lu tolloo ak la nga ci jëf muy wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu ya'maluun muy sax su ñaare mu ne nag loolu nag tax na ba mbir mi kon ci yitte ji ak taxawaay bi rek la nekk kon amul benn discrimination boo xam ne l'islam def na ko ci diggante wàllu liggéey boobu ci diggante góor ak jigéen lu dul li leen di wutale daal mooy seen taxawaay ak seen yitte ak seenu farlute loolu moo tax nag comme ni ko sëñ seexu dundee jamono ju nekk nag danañu gis ci société yi bu nekk bi yàlla bindee aadama awa andi leen ci kaw suuf ba nekk génération bu ne ak société bu nekk danañ ca gis jigéen ñu gétti góor ci wàllu diine ji ak la diine ji soxla ci taxawaay ak ci wàllu nekkiin wi ci penc mi ak liñ penc mi soxla woo jamono ju nekk rek gis nañ jigéen joo xam ne tey am na taxawaay boo xam ne góor amu ko ci ñaari wàll yooyu ba yàlla cërale ko cër boo xam ne cërale ko góor ñi li ko waral nag mooy lan ah sunu borom wax nag fastajaaba lahum rabbuhum anni la udii'u amala aamilin min sakarin aw unsa ba'duhum min ba'din ba ca desig mooy wal mu'minuuna wal mu'minaati ba'duhum awliyaa'u ba'd ya'muruuna bil ma'ruuf wa yanhawna 'anil munkar muy li leen war ci penc mi ci taxawaay bu mat sëkk ci taxawu penc mi ak waa penc mi kenn ku ci nekk na ca sa jëf toll na la ca sag fay toll na la ca cër bañ la cay jox toll sa wàcc waaye ca biir penc ma ak société ba it noonu la toll moo tax nag góor gi ah mën naa nekk kii di fëgg mboolem góor ak jigéen ñam nekkal waaye léeg-léeg it nag ci wàllu kilifteef ci wàllu àdduna ak nekkin wi ci àdduna góor gi nekk ci kanam ay góor ak ay jigéen ngir yitte ak taxawaayam bu mu am mësta deñ bi yàlla wàccee aadama ba léegi ak awa ci suuf société bu mel noonu di am loolu ba ci suñ jonni tey jii loolu nag taxawaay boobu nag moo waral kon lislaam ni muy waajale góor ci wàllu xam-xam ak ci wàllu formation ci wàllu yépp noona la digale ñu waajale ko jigéen ci wàllu xam-xam ak ci wàllu formation moo tax talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin sàkko xam-xam ak waajal jigéen ci wàllu googu farata la ñu gis ci njalbeenug islaam taxawaay bi nga xam ne jigéen ñi am na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daaraam gi nekkan madinatul munawwara dafa aman benn dars benn jataay boo xam ne bu mel ni bii jataayu xam-xam ak jàngale ci ban taxawaay ak ban xam-xam xam-xam yi nga xam ne daa aju ci diine ji ak xam-xam yi aju ci ni ñuy ni ñuy gérer penc mi daara ji ko yonent bi doon jàngale dafa am cours bu mu jaglee leen góor ñi am cours bu mu jaglee leen jigéen ñi njalbeen nga daf leen doon boole jigéen ñett am féeti ci benn côté góor ñi féeti ci benn côté ba yàgg mu beral góor ñi seen kuuru bopp booral jigéen ñi seen kuuru bopp ba loolu moo tax tey bu ñu ko seetee tey ci kàggu yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ca jigéen ña dajale woon bu ëpput la góor ña dajale woon it la góor ña dajale woon ëpp ndax mboolem saxaaba yi li ñuy bari bari ku ci boo ci génnee Abu Hurayra kenn ku ci dajale li Sayyidina Aïcha dajale ci ay ahadis soloo ko kenn dajale te naka noonu ñu baree bari soxna umu salamata ak ñeneen ñu bari ci ña fa nekkan ci nisaa yi nga xam ne ay ay ay saxaabiyaat lañ ñun ñëpp tey fa tabarakallahu maanaa dajale nañ lim bu takkoo takku ci li nga xam ne mooy xam-xam bi nga xam ne mooy moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wàll ci wàllu xam-xam bàyyi woon naka noonu loolu mës ta deñ jamono yenn yu nekk rek ci nga Égypte gi nga xam ne dañuy wax kaabatul ilmi soxna Nafisa di sëtu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax Seydina Hasan moo jur Zayd mi mi ko jur Seydina Hasan ibnu Ali ibnu Fatima boo demee ca Égypte daaraam ja ak dakkaam ja ba léegi ab quartier boppam la ñu di ko soxna Nafisa muy zawiyam bi nga xam ne fa la daan jàngale bokk na ci ñi jàngal imam Saafi yu ci boppam te jigéen naka noonu soxna Zeynab bàjjanam noonu Rabiatul Adawi noonu ah boo wàccee ba ñëw ci nun soxna son maam soxna astawaalo daaram ja daaree xam-xamam ja ak ña nga xam ne formé na leen ci ay góor yàlla kenn xamul nu mu toll kon loolu muy taxawaay boobu kon ci préparé gi nga xam ne lislaam da ko doon préparé jigéen comme ni nga ko xamee ne moom lay préparé góor ngir lan responsabilité bi mu leen dénk ci biir diine ji ak bi mu leen dénk ci biir penc mi ak société bi ñoom ñaar la ko dénk kenn ku nekk nag am nag sa wàllu bopp boo ci war a yoon mu des nag kon léegi liggéeyu jigéen ci gisuñu islaam xam nañu ne ci aada lu jiitu diine yi ñëw am na liggéey boo xam ne ci biir kër gi jigéen moo ko baaxoo def loolu wutewuñu waaye li liggéey bi nga xam ne nag boroom xam-xam yi diine yi ci lañ xaw a am tuuti wuute mooy liggéey bi génn ci kër gi mu am nag ñetti tendance yoo xam ne ñoo dégagé wu ci wàllu boobu tendance boo xam ne bu nekk extrême boo xam ne bu nekk extrême ci nga xam ne maanaa tendance boo xam ne ay extrême lañ ci wàllu googu xaw cee radical lool muy bi nga xam ne daa tënk jigéen rek liggéeyu jigéen ci liggéey bi baaxoo def ci biir kër gi ci togg ak yàq ak buub ak baleeg fóotëg ak toppatoo xale yi am na ñoo xam ne dañoo jàpp ne loolu mooy liggéeyu jigéen liggéey amul sañ-sañ wala wërte génn di ci kër gi di liggéey ba dee liggéey ñooñu ñooy extrémiste yi nga xam ne ñoom foofu lañ tënk jigéen boo leen ne fu ngeen ko sukkandikoo ñoo ne ci waxaar na fi buyoo ci kun na jëm waxan soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam loola lañ wax ne dëgg la xitaab bi ci yonent ci jigéeni yonent bi la jublu woon ci bi muy wàcc waaye nag yemul ci ñoom dafa dajale mboolem kuy jigéen am baneen nag tendance boo xam ne moom it ñoom it ay extrémiste dañ ci seen gis-gis muy ñi nga xam ne ñoom dañoo boyal jigéen ne moom ak góor ñoo yam même pied d'égalité ci wàllu ko muy sañ-sañ ak warugar wi góor am pour war a génn liggéey ni la jigéen ji war a génn liggéey kër gi moom ñoo ko bokk dañuy xool nañ koy gérer ak kan leen mën kan moo leen mën a wuutu ca lañ fa war a def muy mbindaan mu ñu jël wala bon wala yooyu waaye góor gi bu xëyee jigéen ji daa war a xëy ñooyu ñu extrême ay extrémiste lañ ci wàllu boobu am nag beneen boo xam ne moo nekk ci digg bi boobu dafa wax ne dëgg la jigéen liggéeyam priorité am mooy kër gi mooy toppatoo kër gi ak njaboot gi ko yàlla boole ak borom këram bu fekkee ne jigéen la ju nekk ca néegu sëy bu dee ku demagut néegu sëyit jàppale way juróom bu jigéen ci kër gi ak ñaari way juróom ci kër gi ak liggéeyu kër gi loolu mooy priorité surtout nag bu fekkee jigéen ju nekk ci biir néegu sëy la yàlla jox ko ak njaboot yar njaboot ga ak jëleen bàttili surtout nag duñu xàmmee ba tolloo bu ñuy dugg daar kooku mooy mooy priorité waaye loola tegtaliwut nag ne dafa am te dafa sëñ te génn nag pour liggéey yi su demee ba dëppoo ca ak borom këram te ñu gis ne liggéey ba moo gën a nekk maslaha ci kër gi ak njaboot gi ci toog ci biir kër gi bu boobaa nag dañ koy ubbil buntu nag mu am sañ-sañu def ko muy loo xam ne nag mooy li dëppoo ak gis-gis bi nga xam ne sama gis-gis comme ni ko sinteexu naa junja moo dëppoo ak waaxeex nag ca jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi loolu moo doon am kenn werantewut ne liggéeyu kër gi kooku mooy priorité muy yar toppatoo njaboot ga ak liggéey ba mu war a def waaye nag suñ demee ba masla a laaj nag mu war a génn génn goo xam ne du yàq dara du yàq dara wala mu gàllankoor dara ca lam war a def ci biir kër ga bu boobaa it gis nañu ne te boobaa dafay jaatu bu génn gis nañu ay misaal yu bare bari ci loolu ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlal ku mel ne soxna Xadija ci génération yii yëpp loolu daf ci daan am ku mel ne soxna Xadija xam ngeen ne lu jiitu lislaam di ñëw ci jasiratul arabiyya fi mu nekkan muy golfe arab nekkan na jigéen bi nga xam ne femme d'affaires boo xam ne tey ci ñi gën a riche waxuma ci jigéen ña fa nekkan waaye ci li ëpp ci góor ñi sax nekkan koo xam ne bépp activité économique muy sàmm ak commerce ak lépp daf ko doon boole waaye da doon jël nag la nga xam ne minguwul ak liggéeyu jigéen dafa doon def li ñuy tudde mu daara ba muy jël ay ji ay góor employé leen ñu di liggéey mu di leen fay ba loolu moo ko boole ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jël ko muy ku koy liggéeyal mu di ko fay ba ci biir relation bi mu am ak moom ci biir liggéey boobu te la gis ci moom jikko ak melokaan wu mu ko nawee woo xam ne gisu ko ci kenn kum masa liggéeyloo ba ca la gisee ne kii daal ni ma doyee ci sama alal ak ni alal chére ak ni si mënee ñàkkat ni si mënee def naka sudul noonu ci ak ngoree bi mu def ci ak wér ak kóoliteef bu toll ni kii te séq ku dul man ak ku dul man mi nga xam ne jigéen laa kon ni ma doyee ci sama jëmm ci sama alal ji kon noonu naa ko ne doyloo ci sama jëmm ji ba gaaral ko su ko juboo ma dégg ko sama bopp ba loolu mooy waral seen diggante loola itam bi lislaam taxawee it ba yonent bi woote xam ngeen mooy ki ko njëkk a gëm mooy ki ko njëkk a wuyu ca loolee waaye bi lislaam ñëwee itam nag loolu nga xam ne aada la yum ci tekkan muy jigéen di feggoo ak borom këram wala mu feggoo ak waajuram di ko jàppale ca liggéey ba yéwénal seenu nekkin ca biir kër ga ak wa koy yéwénal ca bitib kër ga loolu aadala jum fi fekkan bi islaam ñëwee daf koo adopté li ci am solo mooy ñoom ñaar nañ ci déggoo muy jigéen ji na déggoo ak borom këram ci loolu tey liggéey ba nañ gis ne ba mu gis ne maslaha la liggéey ba muy def ci bitib bitib ba ne nekk maslaha moo xam ne day delluwaat ci njaboot ji ak kër gi yëpp boobaa am na ci exemple yu bari yu ci islam joxe gannaaw bu islam taxawee ku mel ni kii Asma bintu Abi Bakar Siddiq Subayr ibn al-Awwam moo ko yoroon nekk góor goo xam ne loxoom judutoon gannaaw dafa xaw a ne néew doole yonent bi moo ko digal nekkoon nga di ko jàppale ci biir lépp loo xam ne lu yéwénal kër gi ci biir ak ci biti moo tax danaan ànd ak moom ci biti di liggéey léeg-léeg sax Subayru am ngant moom mu génn dem liggéey pour mën a andi ci biir kër bépp liggéey boo xam ne góor dana ko def rek ci loo xam ne lu yéwénal penc mi di yéwénal kër gi soxna Asma bintu Abi Bakar Siddiq nekkan soxna Subayr ibn al-Awam bokk ci ñeent fukki góor yàlla yi njëkk jaayante ak Rasulullah yi doon na ko def naka noonu soxna Fatimatu di doom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkan soxna Sidna Ali yu foofu la féete woon Sidna Ali ci wàllu liggéey muy loo xam ne kon ee mosta dañ mu lislaam di ko andi waaye nag danañ ci ñëw ci kanam dafa am nag bu demee bay am ay sart yoo xam ne ci lay ci lay tege parce que l'islam leen lu ci nekk daf koy daf koy daf koy daf koy conditionné mu mel ni ci liggéeyu jigéen danañu dem a dem a dem sax ba mu nekk farat muy liggéeyu jigéen ci biti misaal jigéen ji nga xam ne tey yàlla dafa dogal mu nekk ak ñaari waajuram yoo xam ne dem nañ ba doon mag ba amatuñ kattan ak doole liggéey lu yor njaboot muy am njagamaar bu nekk ci biir kër ay way juróom sa yéegut kooku tey dafay nekk warugar ci moom farata mu génn nag comme amul ay càmmiñ yu mën a yor seen way ñaari way jur yii wuutu leen ca lañ daan def ba moo fa sës moom jigéen jii day nekk farata ci moom mu génn wuti liggéey bu lew bu dagan bu sell pour mën a yor mën a jàppale ñaari way juróom yi loolu alquran andi na ca xissa boo xam ne tey ba léegi ñu ngi koy jàng di ko jaamoo yàlla ñu wax ci xissatu Seydina Muusa ci ñaari xale yu jigéen yooye nga xam ne dafa dox ba ci digg njolloor mu fekk leen ci benn teen ñoom ñaar ñuy wëgg sonn lool wét fa lool Seydina Muusa laaj leen ah yéen lan moo leen yóbbee lii wéetaay wu toll nii yéen ñaar képp ci manding nii ci waxtu bii ak liggéey bu metti bii amu leen kenn nga leen ko yóbbee kat yàlla danoo nattoo am boole ak ñaari wayjur yoo xam ne mag lañ ba mënatuñu lii amatuñ kàttanu ñëw fii di root di andi ci biir kër ga njaboot gi bi ko jëfandikoo ak jur ga te ñun rek la am loolu nag moo tax rek nuy ñëw fii li tax ñuy ñëw heure bi ah moo di li tàmbalee ci suba ba ci waxtu bi góor ñi ñooy fees dell pind bi di njëkkante te nun amuñu doole yi xëccoo ak ñoom loola te bëgguñoo nekk di jaxasoo ak ñoom di xëccoo ak ñoom pind bi moo tax dañ leen di ëppal ba ñu root ba dem ba teen bi wéet ñu doog a ñëw ndeysaan noonu la ko aaye ba nettalee nga xam ne Seydina Muusa daal di ñëw ndeysaan jàppale leen root ba kii mu ànd ak ñoom gunge leen ba ca seen wayjur ba nekk sa ba jeex loolu itam nag bi alxuraan ñëwee ko saxalaat waxadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaanaa immaa yablughanna indaka al-kibara ahaduhumaa aw kilaahumaa kooku xitaab la boo xam ne ci góor ak jigéen islaam daf noo digal foofu yéen njaboot gi muy góor gi di jigéen ñi na ngeen delloo njukkal seeni wayjur te fàttaliku fañ jaar ak yéen da ngeen mën a gudd dara fañ leen féete woon kon bu ngeen demee ba ñu màggat ba mënal tuj seen bopp dara fàttaliku leen démb te laxasaayu féete leen fañ leen féete woon bu ngeen leen ci seenu mag ba noppi leen a gis kon ci biir loolu képp koo xam ne xale jigéen nga ju nekk ci biir kër way jur yu dem ba màggat te amuloo ay càmmiñ yu leen jàppale day nekk farata ci yow nga génn liggéey ci biti loo leen jàppale kooku kenn la loolu farata la baneen bi ci des bi war a waral liggéeyu jigéen ci biti mooy jigéen joo xam ne tey mu ngi ci néegu sëy waaye jëkkëram loxoom jotul gannaawam alxuraan wax na ca ba muy wax wa alal mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna muy góor gi kat moom mi jaboote moo war a dundal moo war a dëkkal ñim jaboote ñépp soxna saak doom ya moo leen war a wott moo leen war a dëkkal waaye da caa tegaatee lu yun gis soo saati min saatihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataa Allah loolu mooy li war waaye nag loolu tigteelwul nag jigéen ji kat su fekkee am na moyen ak man-man bu mu mënee jàppee ci mbir yooyu ba mu seetaan góor gi nag da dugal loxo ci biir liggéey ndax kenn ku ne xam na ne ci man moom def li ko war ci ñi mënut farata la ci moom boobaa nag bu demee bay def nag wabda bi man ta'ul yaddul ol yaa xayrun min yaddi sufla waaye wabda bi man ta'ul wala ngaa dimbale ña ca bindi dimbaleel sa borom kër bii ci li ngeen bokk muy njaboot kon jigéen ji nekk ak borom këram borom këram mi ngi def effort bi man lépp waaye loxoom jotut gannaawam li muy am ci biirub liggéeyam mënta yor njaboot gi yorin wu rafet te dëkkuwaay baag kodd maag tudd baag njàngum xare ya ak seenum paj kon boobaa moom itam bu fekkee ne bu dëppoo na ci ak borom këram day nekk maslaha ci njaboot gi ak ci kër ga bu amee liggéey bu sell bu lew bu mën a def pour mën a jàppale borom këram ci li leen war ci biir njaboot gi bu waa loole day nekk farata misaal nañ ko ci léegi ci asma bintu abi bakar siddiq ak fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu dañ koy yàgg gis bu baax a baax ah fa tabarakallahu gis dañ ko itam ci nit ñu koy nettalee ci histoire sunu maam jaaratullahi busa sunu maam soxna Anta Njaay sunu maam soxna Faati Isa sunu maam soxna Penda Guye kenn ku ci nekk histoire netti ne na sa taxawaay boo aman ci biir kër ga ak jàppale sa borom kër ci lu dul rek togg ak fuut ak entretien kër ga waaye ci li nga am ci am am ak man-man bi nga xam ne ci liggéey nga ko amee naka noonu léegi-léegi liggéeyu jigéen surtout ci suñu jamono ji dem ba penc mi ak société bi moo koy soxla mu nekk nécessité tey xam nañu ne métier mi nga xam ne moom la ñuy wax wàllu laalu médecine état islamique yi nga xam ne yépp tey seen loxo jot na seen gannaaw jigéen jigéen a koy traité góor góor a koy traité ndax xam ngeen ne léegi-léeg am na wéradi goo xam ne bu la dalee yow jigéen ji bu dalee jigéen ji wala mu dal góor la muy laaj visite ba la muy laaj ci wéet ci yow ak ki nga xam ne moom moo lay moo lay consulté moo la war a traité feebar bi léeg-léeg feebar ba ak visite ba laaj ngeen war a wéet ci benn barab boo xam ne kenn du leen ñetteel nga war a summi sa yére yépp moom muy jël ay loxoom di ko jaarale ci seeram yépp pour mën a identifier feebar bi xam ngeen ne loola bu fekkee ne jigéen la ku ko seq ak góor ah ñàkk pexe de moo war a tax loola am dama dem ba amuñu benn pexe waaye loola xam ngeen ne wuute na ak li nga xam ne dëgg la moom la njàngaleem lislaam ak même sax suñuy aada waaw jigéen di wéet ak góor ci benn chambre bu ñu tëj dindi ay yéreem yépp tëdd góor jël ay loxoom di jaarale ci aw yaram di maaseeka nabb nabal loolu ñàkk pexe loolu moo tax nag réew yi nga xam ne yeewu jullit yépp yi dawale fa yépp léegi dañoo fexe ba loolu mucc nañ ci loolu mu nekk kon warugar ci société boo xam ne ay jullit lañ jigéen ñi yi jàngal leen médecine ba nga xam ne hôpital benn bu nekk jigéen ña jigéen moo leen di traité jigéen ñi moom moo leen di traité rawatina xam ngeen ne jigéen ji toll ci ab diggante ba war a mucc war a am doom condition ya muy amee doom xam ngeen ne sage-femme wala infirmière kooku rek bi ci mooy mooy mooy mooy ka ci gën a yell góor ji ko ko defal bu ñu demee nag ba pexe amul góor mën na ko def kon nag loolu métier la moo xam ne muy métier médecine métier la moo xam ne société jullit yi dañ koo soxlawoo ci jigéen ñi naka noona loo demee rek ñaw xam ngeen ne jigéen tayeet bi bu lay ñawal fokk mu natt la bu lay natt fokk moom it comme médecin bi fokk mboolem cër benn bu ci nekk ngir mu mën koo natt fokk mu jaarale ko loxoom loolu bu dee tailleur la boo xam ne jigéen la koy defal loolu it day dàqonte ak wax dëgg yàlla li lislaam santaane kon nag bu ñu mënee am tailleur bu jigéen boo xam ne mooy ñawal jigéen ñi di leen natt loolu it mooy mooy mooy li gën nga xam ne kon day doon mécc moo xam ne moom itam penc mi da koo soxlawoo te dëgg la bokk na ci métier yi nga xam ne xëy na bu ko jigéen ci jàngee ba man ko mën na koo defee ci biir këram atelier bi nekk ci biir këram wala mu wut atelier boo xam ne donte ci bitti kër gi la nekk atteb kër gi la yor ndax moo fay nekk ak i jigéen ku dul jigéen du fa dugg di clientèle loolu mën naa am waaye ci kaw mu am ay moyens waaye léegi-léegi mu nekk koo xam ne jàng na ñëw ba man ko waaye amul moyens yi am atelier ci biir këram dañ koy embaucher di ko fay muy ñaw bu baax obligatoire fokk mu génn te génn gi la ñuy wax kon yooyu nekk métier yoo xam loo xam ne moom it loolu dana dana tax jigéen naka noonu buñ delloo ci jigéen ji nga xam ne ba tey moom it moo ko àtte ki nekk borom këram wala way juram te loxoom jotul gannaaw mooy jigéen joo xam ne doon na sëy waaye yàlla dogal na borom këram génn àdduna mu nekk arma la bàyyee ko ak njaboot bu ndaw boo xam ne mënaguñu dara mu war leen a taxaw seenum njàng ak seenu nekkin te amul ku ko ca wuutu it léeg-léeg moom it pour mën a wuti ab liggéey pour mën a yor ak njabootam léegi day nekk farata kon ñu gis na yooyu yëpp kon bu amee dana waral jigéen ji ab liggéeyam ci biti nekk loo xam ne maanaam farata la su ko defee nag bu ñu ñëwee nag tey ci bu demee bay liggéey nag bu demee bay liggéey nag nga xam ne liggéey bi dafa nekk farata wala mu nekk loo xam ne tey lu ñu recommandé la maanaam lu kër gi soxla waa wala pénc bi soxla woo ba mu di ko def ci yan condition nag la islam tëral mu war ko caa defe am na beneen sax bu ñu bàyyi boo xam ne moom it bu récent la bu xew ci yii tax léeg-léeg pénc bi soxla jigéen génn liggéey ci biti muy jàng jàngale xam ngeen ne bu ngeen demee ci pays arabes yi nga xam ne seen loxo jot na seen gannaaw la tàmbali ci primaire ba ci université xale bi fa muy jànge ay moroom yi bu dee jigéen ay moroom yi jigéenam képp la fay nekkal ay jàngalekat yu jigéen it ñoo koy jàngal wala bu dee jàngalekatu góor itam day sàmmonte ak anam gi nga xam ne moom la war a nekkee ak i jigéen kuréetul banaat maadul banaat boo ci dem fenn ku ne ci réew yi arab yi da ngay fekk ne jigéen ñi fa ñuy jànge ñoom xale yu jigéen yi ñoom rek ñoo fa nekk duñ jaxasoo ak xale yu góor yi moo xam ca école ya gën a suufe la ba ci université loolu itam yii tàmbalee xew ñu di ko gis loola wane na ne loola nekk dem na bu mujj nekk farata nag ci teqale góor ñi ak jigéen ñi ci barabu jàngukaay yi kenn ku ci nekk nag sa ki nga bokkal aw xeet di la jàngal gis nañu ne yu baree bari yuy xew ci diggante maître yi ak gone yu jigéen ya ñuy jàngal moo xam ci école française moo xam ci école arabe yi ba ci daaray alxuraan yi du am am at mu ñëw ba jàll te déggoo tuuma juñ jël teg ko ci góor gu doon jàngal ay jigéen moo xam ci école yi tubaab français yi la moo xam ci école arabe yi ba ci daaree alxuraan yi sax dañ ko ciy gis te loolu lépp nag li ko waral mooy jaxasoo ki waaye su fekkante ne tey bu dee ci daaree alxuraan yi ñi toll ci jàng alxuraan yi ñëpp ciy jigéen jigéen na leen di jàngal bu dee ci école yi arabe yi noonu bu dee ci école français yi noonu bu dee ci pule yi yëpp du ci am kon mu mel ni ah loolu it dafa nekk kon farata yoo xam ne tey képp koo xam ne da ngaa bëgg a dund sa diine loolu war nañoo tàmbalee dox jëm ca muy muy muy muy muy muy muy wàllu googu yoo yëpp yoo xam ne yu yu wane yu wane solo su ne léeg-léeg liggéeyu jigéen ci bitti kër gi léeg-léeg kër gi da koy soxla waaye léeg-léeg pénc bi da koy soxla léegi nag bu demee ba di ko def la ca jëkk mooy an yakuna al amal fi zaati i masruan mooy jëmmi jëf ci liggéey bi ci boppam daa war a nekk liggéey bu dagan nag li génn liggéey pour yor ak njabootam taxawu borom këram wala taxawu ay waajuram nekk nekk farata ci yenn situation yi bu demee ba koy defit liggéey ba muy def na nekk bu na nekk nag bu dagan jëmmi liggéey bi na nekk bu dagan waaye bu mu nekk lu araam wala loo xam ne mën na koo pousser ci mu def lu araam loolu misaal ma mooy lan bu mu nekk ne day mbindaanu ci kër célibataire boo xam ne célibataire ba dong nga nekk ci biir kër ga amul soxna yaayam nekk fa kenn nekku nga xam ne mi daal su xasee dugg ci biir kër ga ba muy génn célibataire bii amut borom kër rek la fay nekkal loolu moom ak lu mu ko mën a jëndee loolu lislaam du ko ko may baneen ba ca des wala mu nekk secrétaire am boo xam ne liggéey bi day soxloo guddee n'importe quelle heure ci guddi wala ci bëccëg faw dañoo war di wéet ñoom cepp tëj seen bureau nekk fa ay waxtu yoo xam ne kenn du leen ñetteel bu dee liggéey bu mel ni bii la itam lislaam du ko may mu def naka noona liggéey ci lu mel ni restaurant wala bar wala hôtel boo xam ne liggéey ba ci boppam daf koy exiger muy def loo xam ne lislaam da koo tere jëmmi liggéey ba ci boppam mën naa nekk loo xam ne lu dagan waaye mu ànd ci biir liggéey ba nag loo xam ne lislaam daf ko ko daf ko koo araamal ci kaw mu liggéey ci bar wala restaurant wala ci hôtel boo xam ne tey faww nag clientèle ba koy ñëw faww mu servir leen sàngara ci misaal restaurant boo xam ne tey ña fay ñëw dañuy naan sàngara te moom ma fay liggéey nag dafa am obligation nag servir leen sàngara wala hôtel wala bar wala cafétéria wala lu mën a doon bépp liggéey boo xam ne tey bu fa nekkee dana def loolu dafay araam parce que sàngara comme ni ko hadis bi waxee yàlla dafa rëbb tëkku ki koy jaay ak ki koy jëfandikoo ak ki koy jottali ki koy jëfandikoo ak kii liggéey ci barab biñ koy liggéey bi bi nga xam ne moom bi nga xam ne fa lañ koy fabriqué kon boobaa loolu it liggéey liggéey boobu itam du du du dagal naka noonu naka noonu naka nag wala mu nekk oteste ci compagnie aérienne yi nga xam ne day aajo muy tukki nag semaine boo xam ne tey du gis way juram du gis ndey ko séyeegu du gis borom këram di jaxasoo ak i góor yoo xam ne tey ci condition yu doy waar lay jaxasoo ak ñoom di servir sàngara ngeen boo duggee ci biir ñun ñëpp ñuy dugg ci avion yëpp gis nañ ne tey hôtesse yi fi nekk tey bu ñëwee dañ lay laaj boo toogee rek bala ngaa am 30 minutes rek ñu ñëw ne la ne la lan ngay naan champagne ngay naan wala wee ngay naan wala jus d'orange wala yooyu ñoo la koy servir kon liggéey bu mel noonu itam dafay nekk liggéey boo xam ne bu araam kon bépp liggéey boo xam ne bu araam ci jëmmi liggéey bi wala mu bën laa junj ci kii ak loo soxla soxla woo liggéey pour yor sa baay wala dimbali sa jëkkër wala yor sa njaboot lislaam du la ko may beneen bi ci des moo di jigéen ji bu demee nag bay liggéey ah liggéey ba ba tey ci lii la xaw a dugg mooy na sàmmoonte lu jafe nag lool nag ci suñu jamono ji muy bii na sàmmoonte ak melokaan wi nga xam ne jigéen juy génn këram di liggéey ci beneen barab wala muy dem ci beneen barab moom la war a sàmmoonteel ca col ga ca doxiin wa ca waxiin wa ak ñam ko seqal aaya alxuraan te caa ñëw wala yadribna bi arjulihinna li ya'lamu ma yukhfina min zinatihinna alxuraan nee na bu ñuy génn nañ sol yére yu jot sëkk yu muur seen lépp loo xam ne lu wërta feeñ la te lu dul xar kanam bi rek ak ñaari tàng yi buy génn wërta feeñ sol bu jot sëkk gu fat goo xam ne du nekk gu yaraax goo xam ne da ngay xool di gis yaram wa du nekk gu gàtt goo xam ne itam li ëpp ci cëram day feeñ muuru sol sol googu la lañu bëgg mu sol ko buy dox it na dox dox bu teey waaye lam ya mu takk wala xeeti yeneen ya mu takk yépp ci jigéen baaxoo takk bu muy dox dox boo xam ne day yëngutu bay attiré attention nit ñi ba ñu yëg ne kii kat nangam la takk alxuraan alxuraan ko jaar jaaral boppam fa muy liggéey itam bu muy dem nag di neexantal baat pour attiré waaw maanaa nay wax farata te it bu koy wax itam na ca ànd ko dëggu waaye bu mu nekk nag di sarme ak a neexal baat pour attirer attention muy li nga xam ne tey contrairement liy xew ci grande surface yi nga xam ne ñi ñuy jël tey dañ leen di tàggat ci loolu tàggat ci façon waxin woo xam ne ci waxin wu woo xam ne da ngay da ngay charmer ñi ngay wax pour ñu ñu sawar maanaa sawar a jëflante ak yow lu bare bari ci ñii ñii recruter ñooñu dañu leen defar formation ci yooyu nan ngay sarme ñiy ñëw ci biir góor ñi ak jigéen ñi ci sa col ci sa wax ci say doxin marketing loolu ci biir marketing dañ ko ciy jàngale islam nag liggéey bu mel noonu nga xam ne da ngay dem di exposer sa bopp loolu gis nga lam ca waxan te wala tabaruj na tabaruj jël jaahiliyatul uula ah léegi kon loolu lépp nag dafay conditionner liggéey jigéen bu demee ba di ko def ba ca des nag mooy an la yakuna amalo ala isaabi waajibaati xal uxra mooy liggéey bi nag comme niñ ko waxee woon bu mu nekk loo xam ne li nga xam ne nag dëgg dëgg dëgg dëgg mooy liggéeyam bi nga xam ne nag mooy li jiitu moo nekk lu fondamental te mooy li aju ci njaboot bi taxawu njaboot bi ak taxawu borom këram parce que alquran dafa am nu mu séddale nag penc bi wuy kër gi arijaal qawaamuuna ala nisa bima fadlallahu ba'dhum ah wa bima anfaqu léegi kilifteefu kër gi jigéen góor gi lañ ko jox donte société la boo xam ne ñoom ñaar ñoo ko bokk kenn ku nekk nekk ci actionnaire li ko waral mooy li gérer gestion kër gi li mu laaj condition physique morale ya mu laaj li ci yàlla baaxee di ko baaxoo def ci góor gi da koo baaxuti def ci jigéen te dafa aju nag caractère spécial boo xam ne ak melokaan boo xam ne tey kër gi ak gérer kër gi daf koo laaj da ci ëpp nag lam cay baaxoo def ci góor gi daf koo dafa bokkut ak la muy baaxoo def ci jigéen bi ma ak ak dépense bi ñoo bokk société bi kenn ku nekk nekk ci actionnaire kenn ku nekk mënta ñàkk sa morom mais teewul la ci aju ci dépense yépp góor gi la ko gàll kon mu organiser ko ne kon góor gi mooy génn moom di wuti di indi di jox jigéen bi jigéen ji di ko gérer moom itam ak di yar njaboot gi alquran ko min ayati an xalaqa lakum min anfusikum aswajan li taskunu ilayha li taskunu ilayha kon kii génn kii génn mooy ah mooy mooy mooy mooy ki nga xam ne moo moo soxloo moo moo moo mooy dellu siwaat ci biir kër gi kon ki nekk ci biir kër gi ilayha mooy jigéen ji nekk ci biir kër gi li taskunu ji mooy góor gi génn bu génnee nag liggéey ba indi ab coonoom nag fekk fi jigéen ji ci biir kër gi mu parapareel ko añam bu dee waxtu añ parapare ko reeral defaral ko néegam defaral ko ay yéreem defaral ko ndox mu naan la ko war la leen waran ci njaboot gi lépp itam te moom ma génn dekk ci liggéeyam tëlu ko mu wuutu ko ca loolu mooy liggéey bi nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy al asaas ci bopp loolu nag su fekkee ne bu demee ci liggéey bee lee dana dàqu complètement ba jël xalal boobu baa lu metti metti kon bu baa day toog ci biir waaye nag loolu mu nekk loo xam ne saafara te cay mën a am moo tax ñu waxam ne ñoom buñ ca dëppoo buñ demee ba jigéen ji lu jiitu buy ñëw ci néegu sëy ay waajuram dañ ko préparé woon ngir mu amal njariñ këram amal njariñ société ba mu am ay diplôme yu kawe am njàng ak xam-xam boo xam ne penc bi da koo soxla te lii ci biir kër gi moom mën na cee am saafara kon boobaa dañuy waxtaan ci seen biir ba jubóo ci wut koo xam ne moo leen di wutu kooku comme ni muy amee wun bindaan moo xam ne ñoom ñaar ñooy jël di ko fay wala moom jigéen ji ci boppam moom mi nga xam ne tey moo war a def loolu moom moo koy fay ci salaire am muy togg di buub di nettoyer xale yi ñi ci war a dem école mu yóbbu leen école loolu lépp tey ñu waxtaan te ba jubóo ca nga xam ne kon liggéey bi war a na am ci biir kër gi dara manqué wu ci ñu di ko doxale noonu léegi nag mu am loo xam ne tey loolu mooy li war a am boo gisee nag fii ci Sénégal fa tabaarakallaahu loolu moom yàlla am na ci ñu bari ñu ci dimbale waaye ñi ci am jafe-jafe mooy suñu bokk immigré yi nekk ci bitim réew ñooñu moom ca ajjuma jële maa ngi ci doon waxtaan ci seen biir ci jàkkee daaru minam ji ñoom am nañ jafe-jafe ndax ñoom dañuy bëgg a bénéficier woo li nga xam ne moom la leen occidentaux yi jox ci liberté jigéen ji di xëy ni góor gi xëy ba noppi bëgg a bénéficier woo li leen islam jox ci intérêt ci malgré jigéen ji day liggéey kët góor gi mooy yore mooy mooy mooy fay lu yaayee kër gi mooy fay dund mooy defal lépp ndaw si moom li muy liggéey ay or ak yooyu la koy jënde ak yëfi boppam ak di ci sàmbay mbayaa naka def yëfi boppam bëgg a jël ñaar yooyu kooku nag islam ma yow waaye bu dee nag ci liggéey bi ci ci biir fii ci réew mi moom nii bu ko defee nii rek lislaam dana ci kii yàlla dogal it nag comme ni ko sëñ Cheikh waxee ci la ñuy yàqale yàlla dogal nag exemple bi ci yoonu murit ci liggéeyu jigéen boo xam ne tey du ko yàqal dara te liggéey ba sëriñ bi daf cee joxe modèle dindi naa ko sama téere xitma ci waa barsàq yi sëriñ bi dafa leen a waxal ne seenu liggéey li ci jiitu mooy tut tànk yi ñu leen jox ngeen jàngal leen bañ xamee seeni farata toog leen ci liggéey bi jigéen baaxoo def ci biir kër yar leen yarub diine lii mooy liggéey waaye nag laneen lu ngeen ca mën a boole te du yàq dara ci lii loo xam ne da ngeen ca mën a am lu ngeen faje seeni yenn yitte loolay lislaam may na leen moo waralan ñu aman ñoom dañoo recruter woon ñu ay ràbbkat ñu lay ràbbal di boole ràbb ak suuf loolu lañ doon def seen clientèle nekk seex si muy waa kër waa barsàq ak kër ya ko wëral yépp kër sëñ Balla Coro kër sëñ Aafiya kër yooyu yëpp boo fa demaa ab ràbbkat nga fa fekk ak bandi suuf ñuy suuf ak di sagal ak di def liggéey bi jigéen baa koo def te yàqu dara ci biir liggéey di gis soxna ni ñu koy faral di waxee ci bu ñuy nettali xisa bi soxna Fatou Khoudia bay juru soxna benn ngaabu moom ngaabu la féete woon moom bi mu ñëwee fekk ñee di liggéey liggéey yooyu nga xam ne yàqu dara ci liggéey bañ doon def waaye permettre ne leen moom la ko ci gën a ñoral contribution bu ñuy def ci jumaay njaareem ji ak sasu jumaay kii bi góor ñi ñoo ci jigéen ñi ñoo ciy man soxna mi tamar moo ma ko nettali nee na ma sama am suñu ma sàmba kenn mës ta ñëw bisu tam xarit di fekkee njàng ma ta sat indaale woo sa nit ak juróom-ñett jigéen ñi moo ko daan dajale nee na sa bàjjen yi sax dañu daan dajale seeni seenam yi ñu leen di may ba mën a am seen nit ak juróom-ñett soxna Fatou Koudia nag ba mu gisee loola loola yéem ko mu sàkk ci sëriñ bi sëriñ bi ne ko bu subaa ci waxtu wii na nga dellu jël ñaari mbuus yoo xam ne xaalis la ca def ba mu fees dell bii mu ne ko boo demee na nga ko jënde jur gu gàtt ay xar ak i bëy ak i ganaar li ci des nga wut ñu lay ràbbal wut ga ay ay mbandi di boole suub ak rablu ak def lii soo demee nag ba tono ji lii nga am ci tono joo mën a liggéeyee téyel tono ja liggéey ca de delloosil ma ndey nga insistant ba mu ko defee ñaari at ya manqué na ay weer mu am ko delloosi ko mu téye ko bi ak mu ne ko Fatima mu ne am ne ko boole ko ak loolee dama la doon wan aw yoon rek kooku misaal la beneen misaal bi tey te dañ cee war a bind mu di kenn ci waa barsàq yi di sunu bàjjan sunu bàjjan bu baax bi way juru soxna moom soxna Fatou si la li baax ca ñooña la bokk na ci waa barsàq di ànd ak ñoom liggéey bii bi sëriñ bi ñëwee Touba nag mu ñëw de day wettili si Cheikh Mouhamadou Fadal bi mu ñëwee fii ci fetto gii goog maam jaar na ko fala am ay toolam di def li jox mu daara ba boole ko ak liggéey ba mu doon def ci njaareem muy wut ay ay ay ñu koy rab ñu koy rabbal wut ay rabkat ñu koy rabbal mu boole rablu ay séri dëng ak séri njaago ak séri njaago def waaye wut ay tool fii ci fetto di def mu daara ba jël ay nit ñoo xam ne da leen di embauché ñuy liggéey bu liggéey bu wàccee la ca islam santaane ca lañ ca war a am ñu am ko ca lañ ko ca war a jox ñu jox ko sëriñ Mor Xari Sill ba jur la ci noonu dëkkan Thiès nekkan ci ñi teel a ànd ak sëriñ Saaliw loolu nettali na ma ne sëriñ Saaliw nettali na ko soxna Fat si la libaas de moom la xam moom la njëkk xam ci jigéen ju am oto boppam camion la amal T45 xam nga jaay yooyu coopérative yi ñoo am tey baykat yi dañuy am oto boo xam ne tey bu bu mbay mi ñoree moom lay fekk ñu jël seen gerte di leen yóbbu te coopérative soxna Fatou Seye Libaas dafa amal loolu. amal ay outil itam ba loola gis nga soxna moom itam moom itam fii loola la continuer mooy lañ doon def ci njaareem te way juróom doon ko def bi mu ñëwee fii mooy rablu rablu. rablu la doon def ci yooyu jamono ak di def mu daara boobu nga xam ne moom la soxna si doon def bokk na ca bokk na ca ñaar ñi mu jëlan kenn ki nekk góor tukulóor boo xam ne bii ba léegi ak njabootam tudde na ko doom muy béy di sàngu ak cent mille di ab katolik ak kan ku ñax laam koo xam ne jàngkatu xasida la woon waaye soxna si da koo ne jàng xasida kat baax na waaye wutal lool ci boole jàngal bi muy dem ci ràbbkat yooyu ci mendi ak ko jàng fa ba mën a ràbb boole ko di ràbb ak di jàng xasida wala loolu soxna fat si la li baax waaye beneen bi nga xam ne itam misaal la bu baax ci jigéen biy liggéey te sëriñ bi jàngale ko muy soxna Aminatu bintu Daba Sëy ñu gën koo aw gën koo min ci awa ndar ba dee si ñaari tur yi la tur wenn wi awa ndar ji liñ ko ko daan wooyee waaye turam dëgg-dëgg Aminatu bintu Daba Sëy la moo waral da nga gis suñu mat la suñ suñ suñ suñ mat la min ak suñ waxtaan kii tuddee ko nii wéy wéy wenn turwee mooy soxna si yëlli sëy mi nekk nag sëriñ bi Gabon nekkan benn fonctionnaire benn agent boo xam ne da doon liggéey ci administration coloniale ñu affecté woon ko Gabon mu nekk fa ak sëriñ bis ba tubaab yi xëyee ne dañuy buddi jàkkay sëriñ bi muy jàkkay bant ya moom moo taxaw rek patron ne ko tey sama bakkan laa lay jaay moom moom nekk nañ di xeex ba ba ngoon mu ne ko doo buddi jàkk mu yëlli sëy moomee dafa jébbal woon ci sëriñ bi moo ko soxna sii soxna si di am barab bu muy liggéeyee di andil sëriñ bi addiya di ko jëndal matt mi nga xam ne moom la daan jëfandikoo waaye sëriñ bi comme nag bépp alal ju bàyyikoo ci nit du ko jëfandikoo te xamul mastar ba fu mu bàyyikoo koo laaj ni ko ah ndegam yàlla boole na ma ak yow kat te nekk ab jullit nekk ab taalibe kaay ma dénk la nag li jigéen sañ a liggéey ak fi jigéen sañ a liggéeyee ak ni jigéen sañ a liggéeyee réglementé ko lam sañ a yëngut ak lam sañ a yëngut yépp gaboo di réew moo xam ne bu doy waar la e am na benn bis muy liggéey di jox sëriñ bi at yi am benn bis mu ñëw ne ko ce diine de ne ko tey de dig nañ ma loo xam ne dafa mel ni dañ ma doon natt dañ ma doon fay dig nañ ma ñettam waaye barab baa koy defee nag li nga ma doon tere lépp nag moo fa nekkat foofu ma def ndax bu ñuy jëfandikoo sàngara di ma sëriwloo jëfandikoo sàngara waaye nag la nga ma wax rek tax na ñëwuma koo jege fenn yoon tax na liggéey bu metti la doon def waaye bu sell bu baax len rek la waxam ne sëñ bi ne ko len daal moom a moom moom dong day moom a ca xaw a kii mooy léeg-léeg ñu koy dugg léeg-léeg dañuy yore xetu sa sàngara wala xetu cigarette loolu daal xaw na maa métti mu ne ko waaye nag dooy seqoo ak ñenn looy jëflan mu ne ko déedéet mu ne ko loolu moom yolomal yolomalal nañ la nga xam ne kon ci biir madrasatul xadimiya gis nga leeral na bu baax a baax liggéeyu jigéen kon ba ca gën a taamu ñu gën ko caa taamu mooy ba waa bar sax doon def mooy liggéey bi nga xam ne ci biir kër gi la koy def nga xam ne atelier bi muy liggéey ci biir kër gi muy suub ak rablu boo xam ne yow ñu ngi koy def loolu ci biir kër gi lañ la fekk kon jigéen ji bu mënee am liggéey boo xam ne tey ci biir kër gi la koy defee bu bokkut ak liggéey bi mu baaxoo def mooy moom mooy bay gën bu demee nag ba nga xam ne amu ko nag ci bitti kër gi liggéey bi da ko obligé mu génn ci bitti nag mu tënku ci sart yi ñu wax muy ñett sart yi nga xam ne moom la ñuy wax waaye lu ci nekk lu nekk nag te mu dëppoo ci nag ak borom këram te liggéey bay nekk maslaxa moo xam ne day dellu ci kër gi ak njabootu kër gi te dara lu diine dàq niwu te bu koy defi def ko li ko diine bëgg loolu su ko defee rek fa tabarakallahu kon loola mooy li nga xam ne liggéey mu mel ni loola misaal yi ñu ci joxe joxe naa waa barsax joxe naa soxna moom yi waaye soxna muslimatu xeeru xatim demal na ba lii ñuy wax transformation produit alimentaire moo ko jëkk def demal na ba signé benn contrat ak benn société allemande buy liggéey ci wàllu transformation këram fii ci mbal këram fii ci ay muy bâtiment bu rëy boobu projet boobu la woon pour ñu waran gannaaw bu ñu mu société bi lépp rek ci mudaaraba islamiye ñoom la la ñuy jëfandikoo soxna si am na matière bi am na matière première bi am na main d'œuvre bi am na lépp li ci soxla woon nag mooy côté technique bi loolu la ko almaa yi war na fournir indil ko ay techniciens yoo xam ne ñooy former ñi fiy nekk ñuy transformer produit yi muy def muy cere gi couscous bi ak yeneen yi nga xam ne mooy sud fruits yépp pour ñu di ko mën a exporter di ko yóbbu Allemagne loolu demal nañ ba signé loolu soxna si dem na ba am na nangami at ci atam yu mujj yoo xam ne gendarmerie nationale moo leen di fournir cere dem na ba pèlerinage xam nga léegi la màkka neex tabaarkalla boo demee waaye ñi daan aji dañ daan yóbbu seeni muraake yóbbu seeni cere yóbbu seeni baraay yóbbu seeni njorndi jamono yi nga xamee ne tey loolu commissariat ñëpp ci lañ daan dem soxna mu si tegale na ay at yoo xam ne ñiy aji pèlerin Sénégal yëpp cere ja ñuy jëfandikoo ak arawlaak lépp lu ñuy jëfandikoo moom moo koy moo moo marché boobu moo ko moo ko gareew rawatina jamono yi alaaji mas joxaan yi nekkee commissaire général pèlerinage loolu lépp di di taxawaay yoo xam ne fii la ko doon def ci façon boobu yëpp di def transformation ñuy suuf di ràbb di def lépp bépp activité boo xam ne dañ koy def fii di ko def muy liggéey bu am solo boo xam ne tey dëppoo na ak mandarga gi yëpp kon jigéen dafa war a participer ci lépp loo xam ne luy doxal pénc mi ak luy doxal diine ji ca njàngale ma ca yar ba ca woote ba ca liggéey ba waaye nag mu tënku ci sart yi nga xam ne moom la am santaane su ko defee rek fa tabarakallah dara du ci dara du ci kii te manu na ci te yonent bi joxe na ci ay misaal ci saxaaba yi seexal xadiim joxe na ci ay misaal ci waa barsax te yoon moom leen tegan njabootu Serigne Touba gi nga xam ne ñoom lañ lim léegi di soxna moominatu ak soxna muslimatu ak seeni rakk ñoom ñëpp fa tabaarak joxe nañ ci ay modèles yoo xam ne buñ ci delloo fa tabarakallahu danañu développer suñu diine développer suñu société jaare ko ci ñaar ñi yàlla tànn jox leen mission boobu muy góor ak jigéen asalaamaaleykum wa rahmatullahi